sant Cheikh Moustapha mi nga xam ne mu waral lii lépp di ko ñaanal waxtu wu ne muy dolli ay xéwal yéeneem ji yàlla àggale ko nam gën a rëyee Cheikh Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk ginnaaw mi taxaw ci nam ci war a taxawee na koy sant di ko ñaanal gone yii nag di leen gën a xamal rek ne leen fuñ man di nekk bu leen fàtte seen bopp na ngeen xam liñ def ci yeen ak liñ bëgg ci yéen te def ko ba noppi waxtu wu ne ak fu ngeen mën di nekk na ngeen ko xam nekk ca te di ko wane itam di ci nekklu képp ku nga xam ne am ngeen ci moom benn baat wala muy jéem a ci yéen na ngeen ko wan yoon wi ñu leen jaarale mooy yoon wi gën mooy yoonu alxuraan mooy yoonu soxna jaara kon nag bu leen da nga xam ne du ngeen fàtte mukk seen tur yi bu leen fàtte ne tur woowu moo tax ngeen àgg fii tey ci lu baax kon nag wéy leen ci waxtu wu ne te xam ne yoon wi rek moom la kenn ku ne bëggoon moom la jullit bu ne bëggoon ci seen seen njaboot moom la jullit bu ne bëgg ci seen kon nag yal na leen ci yàlla gën a saxal ba ngeen gën koo mën a wéyal fépp fu ngeen mën di nekk loolu rek am solo loolu Cheikh Moustapha bëggoon loolu la yàlla tànn ci yéen ba lii am tey kon nag yàlla na ko yàlla gën a saxal ci yéen yàlla nag ba yéen ñii nga xam ne yéen a àggal itam ku ci daal dellu ca daara ja ku ci dellu ca daara ja ku mën di doon rek na ngeen sax ci yar bii ñu leen defal yarub alxuraan yarub soxna jaara loolu rekk am solo di ko wane di ko dund di ko wane. ndax loolu mooy li ma waxoon rek loolu la sëñ Moustapha bëggoon ci yéen loolu lañ bëgg ci yéen itam ba lii am kon nag loolu rek moo am solo yàlla na ko yàlla gën a saxal ci yéen na leen yàlla taxaw bu baax a baax a baax ba lépp lu nga xam ne Cheikh Moustapha yéene woon na ko ci yéen yàlla def lu raw loolu ci yéen. waaye di gën a képp ku nga xam ne rek yaa ngi gis lii wala nga di ko dégg. ñoo ngi lay gën a soññ ci daara ji te xam ne lii yaakaar naa ne jullit bu ne bëggoon na doomam ak si fii li tax nag mu mën a nekk itam mooy pasteefub taalibe yi pasteefub daayira yi fu nit ñi bu du woon a loolu itam xañ na du ak si fii tey waaye loolu naka jekk loolu Cheikh Moustapha xamoon ba tax mu féetale daara yi ak jigéen ñi ak taalibe Sëñ Tuubaa ak képp ku nga xam ne ab jullit nga kon nag ñëpp ñu ngi leen ci gën a soññ leen gën a soññ ci lépp lu nga xam ne mooy doxal daara ji muy carte yi muy parrainage yi muy lépp muy ndimbal yi nga xam ne nit ñi dañ koy indi te mu bari lool loolu lépp noo ngi leen ci gën a soññ di leen gën a xamal ne li nit ñi def itam mi ngi ñëw ndax moo tax daara ji agsi fii tey kon nag noo leen ci sant bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen koy diviser itam noo ngi leen ciy sant ci loola ndax buñ bëgg daara ji moom ñàkk xam la waaye ku ko xam ku ne te di jullit wala ngay ab sénégalais bu bëgg lu baax sa doom itam am nga ci yéene kon nag ñoo ngi ci woo ñëpp di gën a sant leen gën a xiirtal ci lii ñu xiirtal ci seen i doom ci lu baax waxtu wu ne ñi nga xam ne seen doom dafay nekk itam fexe ba taxawu leen ba ëllëg ba jàppandil leen seen yar bi ak seen ñu nekk seen i seen waajur leen ci gën a mën a jàppale ndax ba tey ay xale lu ñu def def ci ñoom itam ñoom ñoo ko gën a mën a àggale kon nag doo ngi leen di jaar seen gone yii ñu yóbbu fii ba yàlla def ci ñoom lii itam ñu continuer ñoom itam yar ba ak lu baax li def ci ñoom ñu fexe ba loola wéy ci ñoom itam kon nag noo ngi yoom mboolem bokki taalibe yi mboolem bokki jullit yi ñu xam ne daara ji lislaam la fi nekkal amul lenn luñ fi kii lu yarub lislaam ak ak xam-xam ak xam ne lislaam ak yarub lislaam kon nag moom jullit yëpp ko moom rawatina nag taalibe yi kon nag ñoo ngi leen gën a woo ñëpp rek ñu gën a jëm ci daara ji ba ñu baree bari am nañ ci yéene bëggoon indi seen i doom waaye ñàkk yenn ak fenn ci moyens yi moo tax mënuñu ko ba tax na kon nag maa ngi woo gën a mbooloo mi ñëpp taxaw ci ba xam ne képp ni ko Cheikh Moustapha yéene woon képp ku am yéene yi indi fi sa doom yàlla danga ko fi mën a andi man leen a yor yor ba nga xam ne moo mooy bëggan